ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Muntaqa saahibil himmatil aliya wal xalifatil aami muridiya di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di ko tàmbalee sant sunu boroom minu defal fekke ak tal di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel sëriñ bi xaasatan di ko ñaanal yàlla mu gën ko sàmm aar ko kattanal ko mottilil ko mbooleem naal yi innahu ala kulli cheyin qadir wa bil ijabati jadir di fàttali mbokk jullit yi yépp ne weer wi passé chance la ngir gën a jege yàlla ak gëna a sori safaan sunu boroom faratal ci nun wor ko ci laaya bi jàngoon ci gannaaw di laayab yaa ayyuhal ladiina aamanu kutiba aleykum siyaam ngir nu am taqwa te sax ci taqwa diloo xam ne ku ko am am lépp ndax day maye xam-xam wattaqullaha wa yuallimukumullah di maye wërsëg wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqu min xaytu la yaxtasib day defal jaam bi fu mën a jaar ba génn mucc ci njàqarey àddina ak alaxira ba noppi wërsëgal ko wërsëg wu mus sa toq ci xelam defal ko ci ay mbiram ak jàppandal tey ak ëllëg yajal lahu min amrihi yusra di taxit ba yàlla faral ko ay bakkaaram réyal ak payamit lool wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayi'atihi wa ak yeneen ngëneel yu aju ci moom ci wàllu musle ci sawara ak di jëme ci ajana ba tax na mooy nattukaayu ngëneel ngëneel wari su ko seete ci gën a baax ay waajur gën a bari wërsëg ak ëpp xam-xam ak ëpple lu man doon ak jiitu ca ludul dul ak ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ku la gën a ragal yàlla ku ko mën a jur ak ku la man jur loo mën a an ak loo mën a am ak lu mën di ñàkk moo la gën fa yàlla bu dee ci nit ñi nag loolu mën naa bañ a am muy weer woo xam ne sëñ bi mag bi bàyyi woon na ko xel lool fonk ko fonk lu ko lool jàppe woon ko gan gi gën ci gan yi di gan goo xam ne lim àndaale lépp mbégte la akuk dolliku di gan goo xam ne liñ koy ganalee mooy topp yàlla akuk njub a taati wasadad kon noo ngi jottali ñépp digal li sëriñ bi jëme ci ñun taalibe yi ak laabiire gi muy jëme ci mbokki jullitam yépp te mooy nu gën a farlu ci rafetal sunu diggante ak sunu boroom ci xeeti jaamu yépp niki julli saraxe joxe aw ñam jàng alquran ñaan jéggulu rawatina woor nga xam ne weer wi mooy wi mi nekk farata yonente bi salallahu alayhi wa wa sallam wax ci lu rëy ne man saama ramadana imaana wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambi ku wooru koor te gëm yàlla rekk tax ak sàkku tuyaaba jéggalees ko la jiitu ci bakkaaram ci kaw nag muy moytu bakkaar yu mag yi tuub leen te bañ caa dellu ki ne man lu ma sàggan sàggan koor gi moom dana fexe ba li ma daa def wala yi ma daa def kenn du def kenn du gis ma def ko ci kooko bu yaakaaree ak njéggal mi ngi nax boppam ndax tuubam sellul tuub ga dafa ànd ak fas yéene caa delluwaat ka ca fas wu ca delluwaat koor ak lu dul koor kooka sañ naa yaakaar aka a séentu ak njéggal ak sax lu weesu ak njéggal te mooy bu yowmal xiyaamee ñaaw téefam yépp yàlla wooteel ko ko aw yiw ndax yàlla ko dige te nag inna allaha laa yuxlifu lmiaad moo ne illa man taaba wa aamana wa amila saalihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat wa kaana allahu gafuran rahima te mi ngi ko wax gannaaw bum tëkkoo ñiy def yenn ci bakkaar yu mag yi ba wax lim leen di xaare yaakaar nag wëral di tàggoo mukk ak ragal ndax ragal mooy tax sax ci njéggulu te jéggulu ak jaamu yàlla la giirug dund lay doon deesu ko weesu mukk buñ ko doon weesu yonente bi gën a yeey ci weesu ko te musta tàggook jéggulu giirug dundam te mooy boroom may yu réy ya dale ca inna fataxnaa laka fataha mubina ba ca wa yansuraka allahu nasran aziza sëriñ bii nga xam ne moom la defoon roy kaayam booleeg di ko liggéeyal ba yàlla faye ko lii mu am nu xam ko te liñ xamul moo ëpp ni ni doomu aadama lotte ci lim cant yim sant ci may yi ko yàlla may faye ko ko ci biir xasidaam yi ni lotte ci lim lim ci jégglu yàlla kon ñun taaliba yi kenn waru raw ci jégglu ak jéggale ak suturaalante ak dimbalante ak bàyyi xel ci laaye bii di wax ne saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladina yunfiquuna fi sarraai wa darraai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin yal na yàlla yombalal jox weer wi ak xam tam nangul nu ko noog jullit yépp nu fekke ko at yu bari ànd koog tal ci teewaayu suñ kilifa gi ak kiifay jullit yépp ci barkeb sëriñ bu mag bi kul amin wa antum bi kulli xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu طول لنا عمرنا وصحي لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق